tire isi kamta dai banga kamta bai bo ware o kanga bo wartare o kanga yow déglu ma yow fa la mere moo tax ma wolof yi pour ñu waxtaan waaye yow nga man woy wi nga bëgg a fi kay man woy man aw nga war ma aw na caaxaan taxuma jóg te fala jokkale ni rek déglu ma hmm? fa la mere lu ma mere yow yow ngóor loo def noo ko mane lu ma la defati yow naka ngay mën a demee si internet gi di wax waaw woo ma jotuloo ma kay wax ma rek woo ma faalaan soxla waaye tuut si nga waaw foog ma bañ a wuyu boo commencé liggéey kayita ma Mandoumbé yi ba léegi yàlla maa ngi fi yow ma Mandoumbé. xaay xaay déglu ma. xaaral ma na ruuju sax. su ma su ma tuñ su ma déet su ma tuñ mi fa xaw a woo de. mi fa a woo. xaaral yow bi ma la baal di la wax di la baalu àq si julli gi loolu ngaa wax nii. déedéet yow dégg sa gémmiñ ab laalu mbéy yaa ngi ko amee na ma koo wax yow ma Mandoumbé nga xam ne bu ma abal kayit hmm. fa ma ne na yem suma diggante yow. Hmm. parce que am na suma mbokk yu ma jege yoo xam ne àbb nañ ma ko boobu lu ma leen ndax lu la sa jàmbur di mun a muñal sa mbokk faa wax ne suma mbokk la mën na laa yàqal yow noo ma ko mun a aaralee keneen du ko mun a aaralee ma ne ko waaw léegi bu ko yëgee nag. waaw man sa xarit laa sa doomi wala boo nee dara fang na koo wax wala di soo yow déglu ma te bi ngaa ñëw si réew mi si lépp loo ne wax fi mu ne nga si téléphone yow xam na ne téléphone kenn du si waxtaan yi réew mi sax réew mi loo xam kan ne bu ngelaw li sax nañ information ah waaw léegi man bu ma bu Alaska waxuloo ma woon ma dem si mool waaw man kay wax naa la nga loolu ma naqari di ndax wax naa la nga liggéey kii tam yi ba nga bañ ko liggéey nga bu ma demee bi bu ma demee bi gisee mool waxtaan ak moom mool fa ne wax lu ma wax ne ñanka élifin eh, Kundubin récemment boo sénatee lu ñuul daw ah, ne fa xable woon fa xable woon kii tamit mu am si toqi duuna ah. mu am si problème boo xam ne tuuti mu dem si ndungu si bu mu ko waxee nag ma ne ko ah déedéet sax mu boppam ak baya man sax du ma bugg a nga am problème mhm. ma dikk nag de toog si kër gi waalaay nag benn bés ñëw seeti ma mhm. waalaay ni ma waaw yow yow tey ma ñëwee fekk. voilà jëkkër ak Bella. a ak Bella waaw. Mm. a DJ wasataay. wasataay laa ko yow fa man dara. góor góor ki pala woon. muy mu ne depuis li imaam lu man kenn manu ko depuis li imaam. moo DJ wasataay moo da DJ moo da imaam. <laughs> moom lu angale di wax jàpp doosin loolu la. léegi nag mu dikk mu ne ma. Hmm. léegi kay ma yóbbu la suma kii muy indi yëpp tegal ma xam nga loolu koo baax rek. waaw waaw waaw laajuma ko muy indi yëpp tegal ma. moo hmm? xool ko nag ne ko. wax mhm. dëgg yàlla yéene nga ma te junne kontaan naa ci mhm. waaye yow ku la xool xool ma mhm. gumba yi sax bu xoolee nañ xam ne maa la yo <laughs> yow yaa ngi ni ko doon koo xees bi dir kiis ak sa ñaawaay sa lax yi mel ni ko daaj moom kay man ma man a xoolal nu ma xewee rek nu ma rafetee dégg ko moom dégg léegi war a jël kii tamit mu ma tubaab bi dañoo xàmmee nit ku ñuul jëlal suma kii yi ma jël ko nag wutal ma liggéey palaat boo xam ne ñu ngi fay loo baax sax ah. ma nekk farlu ci nag xam nga rek. benn bés ma xëy rek ñu ne ma eh, borom kër gaa la soxla. Ah, liggéeykaay kon kana loolu fu njaay di wax ne ku yor di saqat te man booy liggéey kayitam jàmbur lu sàcca bi di bañ loolu ngay bañ waa jàngi waaw ma génn si bunti kër gi moo ma wax la ko ni si message bi déggoo ma ne la buñ ne xaman numé rek nga sa cherche di di pët pëti nga foog ne gars yi la waaw ma woo ko moo wooyee nag ma ne ko wallaay mu ne ma ne ko ah borom moom moo woo ne naa ko gis si bureau ma foo nekk mu ne ko si buntu mu ne ma continuer dikk si kit gi bu ko gis boo ko gisee rek lam lambaay ñaaw nga làgg ma làgg nag ñëw si kit gi ma ñëwee rek mu ne ma pagal sa e si ñu dem aéroport hmm. mu jëndal ma billet noonu laa duggee si plane gi ñëw eh, fii ñëw Seattle mu ah, fi ñëwee nag toog si kër gi ah, ah. toog si gi ba eh, kii yow mën nga fay gi di naan si ataaya e bés mu ne ma yow gis naa ne yow soo yaa ngi fi rek fu la jant suba gi bàyyi hmm. bu ngoon gi faa lay fekk xanaa lu xew bëgg la liggéey ma ne ko ah yow tamit nag bëgg naa liggéey waaye xam nga rek en fii meloon ni dëkk bi waaw ñànkar ba ñu tey nu bët yaa ko féetoo ko mu ne ma ne ko fu mu toll nii yoo xam nga ne fii meloon ni dëkk bi mhm. fu mu la nee rek nga téye sa buddi gamba ga de jaay waaw xam naa moo tax na xam nga lu ma bëgg mën naa la yóbbu suma kayit yi ñoo mhm. ko yóotee nga liggéeyee ko ndax xam naa ne njaboot gan si kër gi di la xaar ma ne ko waaw ma ne ko man de yow xam nga ne sama paas gi faa ko leboon. Ah, waaw xam naa ci dara ñaari junne. Mm-hmm. lépp fii ñetti junne. Mm-hmm. lépp fii junne ba mat. Mm-hmm. te ba maa dëkk. man faa leen ne bu ma leen ne cib rek. ñu ne weer ku nekk dina la yow taxaay. te yow xam nga ne ne man lu ma foogoon ak ma fekk dafa wutee ni guddeeg bëccëg. léegi nag waaye man Fada sa doomi di man waroon na bante bu dégg loolu ma la wax ne moom suñ gisee ñun ñaar ñu waxtaan yow sa bopp xam nga ne fii kenn du wax téléphone ci yeneen waaw loolu dëgg la nag ah? léegi kon nag liggéey ka xamandu be na wuyoo moom ngeen xam naa ne bu ñu xamandu be fa nga naan gàjj rek koor xamandu ah? moo tax na sa gémmiñ gi sa laalo mbéb bi buñ dajee liggéey kaay nga wooyee ma Modou Moussa bu waay caa di nga force bo ji soo fi ne Modou Moussa yi effacé nga ko dee na man tuma téléphone bi fu ñu moom waaw kon yow loolu moo xew nii. moo xew ne daal Modou Moussa gi moom effacé nañ. waaw man sàcc wax la gis nga man mii sax. Ah. faala doon bañ a wax rek parce que faala mere man tamit fu ma biir xol bi te moo tax ma wax la loolu si message bi. yow fa nga jógee Alaska man ma toog ndax ñëpp xam nañ ne yaara suma doomi ndey gaay dëkk ñuy fecc de reprobé di def lu ne maag yow waaw da fàttale ko dëkk ba hmm. man fa nga ñëw dundal suma xol bi ndax man yi nga doon dee yi ñu doon def faa ko na moom léegi nag fa nga ko jógee rek ñu dëkk suma kenn faa toog ñu déedéet eh, dëkk di hmm. dëkk di yow la ñoo laaj te di la laaj Modou Moussa ma ne leen xaama ko tey xaama ko suba ñu ne ma yow la ñoo laaj te Modou Moussa ma ne leen xaama ko tey xaama ko suba ñu dugal tant que dugal loxo ma ne leen xaw ma ko. xaw ma de. xaw ma la de. de noonu lañ def nag. waa gannaaw demee ne noonu nag ma ne xamoon nañ ma. Mm. yow it wécc nga sa tur bi fi mu ne Mouhamadou Mbengue ngaa wuyoo. waaw ma ne la ma doon wuyoo dëkk ba rek. ndax ma ne boo seetee fii ma ne. Ah. Euh, euh, euh, mu ne yi Pa Ousmane waaw Pa Ousmane gi tax de boo xamul rek fa nga suma doomi ndey moo tax fi mu ne la. waaw suma Madi Hanja gi xam nga ne nag. réew ma Madi Hanja rek moo gën a jekk waaw soo fi mu ne Madi Hanja rek. Ah. ndax du ko defee. Ah. dinañ seet Pa Ousmane ba bëgg a dee duñ ko mos a gis. waaw kon bés ni ki tey. Mm-hmm. Mondumbe. Modi Hanja. Modi Hanja.